dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibé yi mbokk yi bàyyi xel seen site internet Rafah TV ñu ngi am mbégte ak kontaan ci ànd ak yéen ci seen émission yi nga xamante ne ñu ngi koy amal fii ci biir Rafah TV ah, di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi saahibul fadila wasila siyaah Muhammadul Muntaqal Basiru di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yaram waaye noonu lañ koy ñaanale mbooleem njabootu Serigne Touba gi mbokk yi tey dañu ñëw ah, fekk ñëw fii nga xamante ne moom moo di ah, complexe Seexul Xadim nekk fii ci biir Touba ñu gën ko xam ci université Seexul Xadim bi nga xamante moo nekk ci biir Touba ñu ñëw fi tey euh, ngir fas yéene waxtaan ak ñoom jëme ci li nga xamante ne moom moo di lenn ci banqaas yi nga xamante ne mi ngi fi ñu ñëw ci fekk fi jëmm joo xamante ne nag moom jaakaar naa ne dootuñu ko présenté ci réew mi waaye rawatina dëkk bu sell bi di Touba muy Serigne Mountakha Diatara Euh, di inspecteur nekkoon ci yaf bu Mbacké waaye tamit ñu andi ko fii ci euh, bërëb bi mu fiy def liggéey bu am solo liggéey bi nag di mbooleem école yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir Touba euh, moom mii mooy seen directeur nekk fii ci kër gi xam naa sax danañ ko jox kàddu gi ci kanam mu daal di nuyoo bu nuyoo pare daal di dugg ci présentation bi yu ni mel xam naa dañ jox sëng bi li nga xamante mooy kàddu gi rek mu nuyoo bu nuyoo pare ñu doo ko dugg ci laaj ak tontu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara mm-hmm. di leen balu àq te di leen baal àq mm-hmm. di am mbégte lool ci euh, jataay bi nga xam ne ñu ngi koy am ak euh, Rafah TV mm-hmm. ci barab bi nga xam ne mooy mu jàmma u Cheikhul muy euh, complexe Cheikh Ahmadul Khadim fas yéene waxtaanee lu jëm ci rek daara ji naka la tëddee ak mbir yu bari yoo xam ne daal incha allah bi ñuy ñëw ci kanam dina ko gën a leeral Mm-hmm. ñu ngi ñaan waxtaan bi nag amal njariñ ñi koy diglu mm-hmm. amal ñu njariñ ñu ñu koy wax mm-hmm. te lépp yàlla boole ko nag dugal ko ci liggéeyu Cheikh Ahmadou Khadim ñu am ci ak payam uh, maanaam laaj bu njëkk bi moom moo di direction bi nga xamante ne fi la nekk tey jii boo ñu ko doon identifier ci ñu ngi ci ban direction actuellement waaw loolu day ni mu demee mooy xam nga fi ñu nekk ci barab bi ñu ngi koy tuddee complexe Cheikh Ahmadou Khadim muy mu jàmma u Cheikh Ahmadou Khadim mooy barab boo xam ne dafa dajale ay mbir yu bari. Mhm. maanaam ay ay ay buñ ko tuddee ay ay ay jàngukaay yu bari. Mhm. ay mbir yu bari ay jàngukaay yu bari. bokk na ca jàngukaay yooyee jàngukaayu alxuraan. Mhm. jàngukaayu majalis. jàngukaayu euh, enseignement supérieur. ak ay direction yoo xam ne direction bu ci nekk daa am. wàllu gum jëm. ab mm-hmm. liggéeyam foofu la jëmee ci direction yi nga xam ne ñoo fi nekk te bari na lool. Mm-hmm. bu dee jàng alxuraan bi. kon loolu lépp maanaam loolu lépp moo booloo ñu tuddee ko mu jàmma complexe. Mm-hmm. ci biir complexe bi ci la université bi nekk. ci la wér ñu bari dañuy jàpp ne. bu ñu la waaye université bi daa nekk ci biir. yeneen bànqaas nekk ci biir yoo xam ne ñoom it. mu jàmma bi da leen a làmbuwaale. da leen ëmbaale. xam nga Cheikh Mouhamadou Mountakha bi mu yàlla tegee ci fii mu tegu nii yàlla fi yàgg loolu te wér. amiin yaa rabbal alamin dafa bëgg-bëggam ci wàllu njàng. teel ko wane lool. Mm-hmm. ba mu ko doonee daal ne lii bëgg-bëggam tey ambition moom mooy xam-xam. Mm-hmm. maanaam daal priorité bi mu def ci liggéeyam. Mm-hmm. mooy xam-xam liggéeyal xam-xam macha allah. te loolu nekkul loo xam ne ba mu ko waxee lañ ko xam. waaye ba mu ca nekkagut it. da ko doon def. noonu ñii fi nekk di liggéey fii mhm. yàgg na noo liggéey ak moom ci lu jëm ci wàllu xam-xam mhm. am ak moom ay jataay ci wàllu xam-xam te boobu nekkagul li mu nekk mhm. bi mu ko nekkee nag nga xam ne yàlla jox na ko responsabilité bu toll noonu nag mu ne nag li muy njëkk a def ci liggéeyam ak li ci gën a soxal mooy jàng ak jàngale mott li mébatum Cheikh Ahmadul Khadim mi nga xam ne amoon na ko ci jàng ak jàngale bi bi loolu amee nag mu ne kon day mott li mébatum Cheikh Ahmadul Khadim mi nga xam ne ci nettalib Cheikh Mbacke Bousso sëñ Mbacke Bousso bi nga xam ne ku jege woon sëñ bi la tey mbokkam mm-hmm. moo waxoon ne sëñ bi bi mu fiy jógee ñetti mébét la fi bàyyi mm-hmm. ñetti mébét yooyu mooy dem Makka ca la mm-hmm. benn ba ca mooy euh, defar boo xam ne doon xibla jublukaay sow ak penku ñëpp ñëw di fi jël si xam-xam beneen ba ci mooy jumaa ji jumaa ji mhm. muy ñett mhm. tabax jumaa mhm. ñett yooyu la fi bàyyi woon day mel nag ñett yooyu yëpp yàlla dogalul bi mu fiy nekk mu mën a am wallaay ndeysaan wallaay ndax bu ci nekk amoon nay gàllankoor yu tee mu mën a am ci jamonoom waaye ni ko yàlla bindee nga xam ne lu mu ñaan yàlla yàlla may ko ko eh, ñaar yu jëkk yi moom yàlla defal na ko ko ci ak njabootam jumaa ji àgg na na mu ko bëggee woon doon ko doon ko xalaatee noonu. Mm-hmm. yàlla àggale na ko ci njabootam mu tàmbalee ci Cheikh Madou Moustapha àggee ci Sëriñ Fallou. Mm-hmm. boobu tey ñu ci yokk ko yokkaat. Mm-hmm. kon moom loolu moom defal nañ ko ko gannaawam. aj màkk gi booba lañ ko defal ci gannaawam Sëriñ Fallou moo ànd ak njabootam Sëriñ Cheikh maam maam Cheikh Anta ak Sëriñ Mbàkke bu soog ñoom ñëpp. ñu ànd demal ko dem màkk demal ko màkk. waaw euh, woy woowee Sëriñ wax ci. Euh, ataytu ila nabil karimi ziyaratan an cheikh al xadimi macha allah kon moom moom da doon ajale boppam mais da doon da doon àggalewaale yéene sëñ Tuubaa kon ñaar yi moom àgg na ci jamono sëñ Tuubaa mu des nag jàngukaay bi nga xam ne nag yéene woon na koo taxawal ba ndax ba sax ne woon na da toon na tàmbalee jënd ay ay téere di ko dajale pour maktaba kon na ko tàmbali waxoon na ay nit ñu tàmbali ko jënd waaye yàlla dogal mu jógee fii te loolu amul ba mu fa jógee nag ba loolu nag mboolem ñi di ay njabootam di ay xalifaam kenn ku ne yaa nga doon jéem a amal loolu mooy njàng njàng ci boppam. Mm-hmm. sax ci Touba. Mm-hmm. ñu liggéey ci liggéey bu rëy dalee ci sëñ Modou Moustapha ba ci eh, eh, suñu xalifa bi ñu toll. Mm-hmm. kenn ku ne def nga ca sawaar ba def ca loo xam ne ci jamono yooyu la mu tolloo loon lu rëy la woon. ci wér yàlla dog muy def muy dox nag ba tabbi ci loxol Seex Mouhamadou Mountakha mii nag mu jóg nag moom loolu muy itteem mottali yéene boobu. nañ mottalee jumaa ja nañ mott léegi nag mottali yéene Sëriñ Tuubaa jooju nga xam ne kon loolu woon liggéey ci xam-xam di ko ko liggéeyal mm-hmm. lu koy jëmmal nag mottali ko nag ba ñëpp gis ko nag mm-hmm. moo tax mooy projet bi nga xam ne mooy mu jàmma ko Cheikh Ahmadou Khadim mu samp ko daal cee bu rëy boobee ñu daal xeer ba ay at yu néew mu di daal di koy tabax mu daal lu bari àgg ci mm-hmm. bañ daal ci jamono yu mujj yi lu mat lu mat tàmbalee at daal ci tàmbalee jàng mu jàmma boobu nag comme ko waxee am na daaray alxuraan daaray alxuraan ji fi ne nii juróom-ñetti téeméeri nit ñu ngi ci. juróom-ñetti téeméer. juróom-ñetti téeméeri xale yoo xam ne juróom-benn at lañ am ba ci juróom-ñaari at. Hmm. lu ñuy jàng alxuraan rek la ñuy jàng. jàngeen wu sell. boo hmm. xam ne nañ koy jàngee ca naar yow la ñu ko jàngee ca feneen. Hmm. ñi ngi koy jàngee fii di ko mokkal di ko bind. wallaay loolu am na fi juróom-ñetti téeméer juróom-benn téeméeri ay góor lañ. juróom-ñaar ña wala ñaar téeméeri ci ay jigéen lañ. ci biir juróom-ñett ñëpp dañ fee interdit dañoo fi la ñuy dëkk mhm. fi la lekkee fi la naanee fi la fanaanee te sëriñ bi bëggul ñu joxe benn dërëm mhm. droit d'inscription bi ñu wax nga xam ne bala ngaa dugal sa doom fenn mhm. danga koy fay sëriñ bi nee bu buñ ca buñ ca def dara dañ la wutal kenn yoo xam ne bu ñu fóot ba ca des duñ fay dara dara duñ ko fay loolu lu rëy la lu mat a xamit macha allah lu mat a xam waaw ñu dañu ñu di ci dépensé lu bëree bëri ci alali boppam buñ ca jógee majalis mi ngi fi. majalis. Mm-hmm. mooy njàngum mm, cosaan mi nga xam ne lu fi nekk rek moo ko fi indi. Mm-hmm. wala lu ci bari ci lu fi nekk moo ko fi indi. Mm-hmm. Eh, mag ñëpp génnee ci. borom xam-xam yëpp génnee ci. moom it ko téye. dañ ko téye te ko gën koo dëppale ak jamono. nam meloon ñu bàyyi ko noona waaye dolli ci lu jamono laaj. ñu dolliwaat ko ci ba loolu ña ña doon toppatoo loola toppatoo nañ ko ba dugal ci loola. ba ñoom it tàmbali nañ ay téeméeri téeméer ña nga fa di jàng. macha allah ci ci barab booba. ñi nga xëy léegi lañ wàcc. te bu subaa dañuy xëyaat. ci loolu moom ma ngay am. Hmm. ñooñu nag interne wuñ fi ñoom ñoom. Hmm, hmm, waaye mu amaat nag li ñuy wax université nag. muy muy muy muy kuliyaat yi. kuliyaat yi ay EFR. yoo xam ne yu yu la. moom la moom la nit ñi gën a xam ci université. fii ubbi nañ fi ñett léegi. ñetti EFR yoo xam ne. dañ fiy jàng bii dañ ciy jàng lu jëm ci wàllu lislaam muy étude islamique. bii dañ fiy jàng lu jëm ci wàllu loxol arabia muy hmm. langue arab ñaar yooyu moo fi am hmm. ñi fiy jàngee dañ fiy jàng ba am fi licence lu mu gën a hmm. néew li fi njëkk am mooy licence licence bi ñu fi am mooy bañ daan wuti Madina di ko wuti Caire di ko wuti Bagdad di ko wuti Maroc di ko wuti Tunisie lañ fa wuti ñu bari sonn ci coono bu metti bañ koy laata am léegi mën nañ ko amee fii ci ah, Madiyana ñoom tamali nañ seenum njàng ba première année bi jàll na ñu ngi ci deuxième année incha allah bu déwénee ñu def troisième année am seen licence boo xam ne moom lañu war a jàng mm-hmm. sëñ Tuubaa xamul njàngum diine ak hmm. njàngum adduna hmm. njàng mu am njariñ la xam ilman naafi an ilman naafi hmm. mooy sax euh, ci arab mooy moom seen mandarga fii ci ci ci ci complexe bi ñetti ponk yooyu nga xam ne mooy al ilmu naafi wala amalu saalih wala amalu mardi xam-xam bu am bu am njariñ ak jëf ju baax ak ay teggin macha allah ñett yooyu mooy seen mooy seen mooy seen salaga euh, euh, ki ci bu ko defee loolu nag al ilmu naafi boobu moo tax ñu indi wàllu santé boobu. Mm. ndax nit ku wérul mënut a def dara. wallaay da ngaa julli bala ngaa def lenn da nga wér. Mm. Mm. kon loolu lu am njëriñ la ci dëkk bi te dëkk bi soxla na ko lool. ci lu wér ci lu wér soxla ko lool ñu dugal ko. ngir bay boobu nga xam ne moom la suñ bi wax ci ilmu naafi. Eh, kal aqdi wal fiqhi wa kat tasawufi wa kulli ilmin bi manaafi'a yafi. man ne li ñu war a jàng continue yi ñu war a jàng mooy jàng sa diine ba xam sa diggante ak sa di ko jàng. Mhm. boo ci jógee nag jàngal bépp xam-xam bu lay indil njariñ mhm. loolu rek la sëñ bi bépp xam-xam bu lay indil njariñ lépp dugg na ci biir moo tax sëñ bi bi mu sotee jàngukaay bi wax ne nañ ci diine mooy mooy cosaan li diine mooy fondement bi moom moo moo moo ëmb lépp waaye nañ ci ubbi nag yeneen mm, yeefeel yoo xam ne mhm. day jàngale loo xam ne mën nañ ko tuddee njàngum àdduna wala mu am njariñ ci tey tey tey tey jëriñ jëriñ jëriñ doomu aadama suñu ubbi santé boobu incha allah année année di ñëw wala mm-hmm. ah, ci at mii sax ñu ngi bëgg ubbi waat yeneen IFR yoo xam ne la amee njëriñ te noonu la amee macha allah ni ñu ko tënkale am na solo lool ndax jàpp nañ ne lii taalibe war nañ ko xam ndax ah, bëri na ñoo xamante ne yàgg nañ ko jaawale rek ci tur bi ñenn ñi ngi ko université mais ndekete complexe la boo xamante ne bii université bi dafa nekk ci biir loolu am na solo léegi nag ñu daal dugg nag ci wàll yi nga xamante ne moom nga géré muy nga directeur gi nga nekk jëmee ci école yi nga xamante ne ñoo nekk ci Touba mm-hmm. ah, jamono yi jàll gis nañ ne woote woon ngeen di am ndaje fii ci Touba ndax ma ngi di kalaat ca ndaje moom ak la ca la ca mm-hmm. ko woote woon mooy noonu ma ko waxee ci complexe bi mm-hmm. làmboo gém làmboo ay banqaas yu bari da caa am benn banqaas boo xam ne dafa làmboo li ñuy wax ma euh, madaaris euh, idaaratu madaaris Touba maanaam direction des écoles de Touba. Mhm. loolu mooy lan mooy sëriñ bi dafa bi mu sosee yëf yi dafa gis ne lii kat yiw sos nii moom ci biir miir yi la nekk ñeenti miir yi mhm. ci biiram la nekk dara génn ko lépp ngi ci biir mhm. mais moom li mu bëgg moom système éducatif lay defar buy defar système éducatif nag kon am na njàng mu ne ci bitti moo xam ne moom it dafa lëkkaloo ak njàng mi ñuy mhm. jàng ci biir ndax ñuy jàng ci IFR bii nga xam ne ñooy am étude islamique bi am ay mhm. am biñu fi laata ñëw te bac am ci école yi ci bitti ci lañ moo gis na kon kuy defar fii ci biir war ngaa defar ci bitti tam ci lu wér ci lu wér direction bi mu nekkoon ak commission ba yàgg mu nekk ab direction mhm. am liggéey bu mu leen sant nañ xool programme yi nekkoon ci tuubaay yëpp wala ci réew mi yëpp sax yi nga xam ne moom la nit ñu doon jàngee ñu seet ko yëpp naka la demee. Hmm. lan moo ci nekk ci loo xam ne lu baax la ñu gën ko baaxal lan moo ci nekk na loo mën naa gën a baax ñu def ko ci mu a baax. Hmm. loolu la ñu santoon. Hmm. biñ ko seetee nag ñu gis ne réew mi kat léegi ñetti ñetti programme rek moo fi am. wala ñetti offre rek ñoo ci am offre bi nga xam ne day jàngale arab. arab wax arabo islamique al arabiyya al islamiyya. taxali di dañuy jàng lépp. dañuy jàng lépp ci langue yi euh, euh, matières yi ñuy jàng yëpp ci arab lañ koy jàng hmm. moo xam matière diine la moo xam matière yeneen yi ci des la lépp ci arab lañ koy jàng hmm. am nañ nag la langue français rek hmm. comme langue ñu ko jàng comme ni ñuy jàngee langue langue rek kooku mooy arabiyal islamiya mooy bu mel ne Azhar am na ci yoo xam ne Azhar noonu lay liggéeyee ak tokkoor ba waaw ak tokkoor ba mu am nag lu ñu tuddee franco arabe franco arabe mooy école bi nga xam ne day da koy jàngale waaye programme bi France bi jàngale daf koy jàngale mm-hmm. ñu di ko wax cinquante cinquante cinquante cinquante ñaari xaaj lañ ko xaaj mm-hmm. ko arab bi mm-hmm. genn wàll waxtu yi ñu jàng ko ñu jox ko français bi nga xam ne comme day day matière yëpp nga xam ne la ak euh, arabe la daf koy jàngale ci làkku arabe waaye matière yëpp yoo xam ne ci français la ko jàngale ci yeneen yu loolu yooyu la daf koy jàng jàngale ci français comme nga xam daal programme français bi rek la yor dugal ko ci biir programme arabe bi boole leen ñoom ñaar ñëpp loolu la ñu tuddee franco arabe mu am beneen boo xam ne moom la ñuy tuddee classique. classique classique mooy ñi xëy na jàng français rek. Mhm. kese am nañu arabe waaye nag français mooy seen langue. Mhm. bi ñuy jàngalee moo dominé. waaw moo mhm. dominé. mooy seen langue bi ñuy jàngalee. médium bi ñuy jàngalee mooy français. kon ñett yooyu ñoo fi am. ñuy jàng arabe donc ñuy jàng franco arabe boole arabe ak euh, français ñuy jàng français. am ca tuuti arabe. ñett yooyu ñoo fi nekk ñu ko xoolee. ñu gis ne ñett yëpp yëpp na ci yu baax lool. wala am na ci lu baax lool. looleen baax dañ ko fa bàyyi dañ koo dëgëral waaye am na yoo xam ne buñ ko ci dollee dana gën a rafetal mm-hmm. liggéey ba dana ko gën a baaxal mm-hmm. yooyu nag buñ ko xoolee ñu gis ne uh, am na ci uh, école yoo xam ne jàngalewuñ Cheikh Ahmadou Khadim li mm-hmm. nga xam ne mooy suñu roykaay ci diine ñu gis ne uh, gone gu dëkk tubaa Mm-hmm. juddoo Touba yaroo Touba jàngee Touba. Mm-hmm. génn Touba ñu ne la koy sëñ Touba xamoo ko. ah wax dëgg yàlla war naa yéem ku ne. ci li wér naka nga xam ne noonu la mën a yéemee keneen ku jàngee ca Fuuta ca Fuuta. Mm-hmm. jàng fa ba ñu ne la kan mooy Cheikh Amadou Fouti xamoo ko. loolu day ah. daan doon kii kii maanaam loolu. doy na waar doy na waar noonu noonu lañ ko gisee. bu ñu ko gisee noonu ñu ne kon nañ wut lu leen xamal loolu. ñu andi benn module boo xam ne. ñu ngi koy tuddee siiratu Cheikhul Khadim. macha allah biographie sëñ Touba. fi mu gane ci àdduna ba Mm-hmm. yëpp ci saa yëpp lépp ca ci gàttal. Mm-hmm. ci euh, leeral goo xam ne tolloo naag xale yi nga xam ne ñoo koy jàng. Mm-hmm. ñu ne kon loolu moom a ñàkk a dugg. ñu ne it sëñ Tuubaa bi mu ba ñu xam ko ba noppi it waaye lu mu fi indi. li mu mu fi indi nag moom it ñu war koo jàng ba xam mooy lan. ba buñ gisee lu mu doon ñu xam ne moom la. bu gisee lu mu doonut ñu xam ne doonu ko li ñu gis ci mbedd mi wala ñu gis feneen wala ñu ko dégg. ñu ne loolu mooy mouridisme. suñ ko jàngee ba xam mooy lan. lool it daa war nag ab Sénégalais rek bu ne mm. waaye daa gën a war rek ab murit waaye daa gën a war ku dëkk Touba moom it mu xam murit la mm. mooy lan mm. ñu dugal benn module boo xam ne ñu koy tuddee matxal ila dirasatil muridiyya maanaam loo xam ne lay dugal daal ci biir yoonu murit jox la ci ay principe jox la ci ay euh, xam-xam yu yu mënta ñàkk nga xam ko waaye murit it biñ ko xoolee ñu gis ne dafa dugg ci tasawuf murit tasawuf la tasawuf la waaw la dugg mhm. waaye kon tasawuf boobu koo xam mhm. war nañoo xam ay principe am mhm. ko xam moom it ñu dugal mu ba mu dul boo xam ne moom it des benn boo xam ne euh, gone yi dañuy jàng tawxiid tawxiid dañuy jàng fiq naka jekk daanañ ko jàng ci ci ci école yëpp école yëpp même école français sax dañ ko a jàng ay baadaat yi waaye ñu gis ne loolu ñu ci daan jàngkat dañ ci daan yem ci rek mbindi keneen mm-hmm. koo xam ne mën nañ ko bañ a xam sax mm-hmm. waaye daal lii daal mooy fiq lii mooy tawhid ñu di ko jàng mm-hmm. taxaara li ñuy taxaara laab ak euh, wudu ak euh, tayamum ak salaat ak yëpp dañ ko daan jàng ñu ne nag jaadu na ci ñoom bu ñuy jàng mm, thème yooyu ñu xam ne Cheikhul Khadim tam liggéey na ci loolu. ci lu wér ci tawhid ak fiq liggéey na ci lu bari. ndax ñu bari dañoo def ne Sëriñ Tuubaa kat li mu liggéey. Mm-hmm. mooy xasida yi ñuy jàng. xasida yi ñuy waaw. waaye salaatu ala nabi mm-hmm. wala nangam loolu rek la mm-hmm. liggéey. ci lu wér te mu liggéey lu bari lool ci xam-xamu tawhid. liggéey lu bari lool ci xam-xamu fiq. ci lu wér liggéey lu bari lool ci xam-xamu tasawuf. ñu ne loolu umpule ko ci gone yi. du du ëpp naa def. macha allah war def nañ lu mel ni li ñeneen mag def wala lu ko raw. kon xale bi buy jàng fiq ba dajeeg euh, njàpp. Mm-hmm. ñu ne ko faratay njàpp nangam la. Mm-hmm. mu jàng ko ba noppi. ñu indi ko ne ah, ci tasawut sixaar mm-hmm. buy jàng sangu. ñu ne ko faratay sangu nii la. mu ba noppi. ñu woon ko ci biir tasawut sixaar ne ko fii la. mu boole ko ak lam doon jàng. nga xam ne daf cay gagné ñaar. benn ba mooy daf cay gagné euh, résumé li mu doon jàng. man koo mokkal ndax aw ay woy la. waaye daf cee gagné ba noppi xamit nag ne kii kat di di maamam. Mhm. xam liggéey na ci diine lu mel nii. ci lu wér ci lu wér ju bari xamuñu ko woon. macha bu dee ci tawhid noonu lañ koy def bu ñu àggee ci baabul imaanu billah nan la ko Sëñ Tuubaa xamle. Mhm. al imaanu bil malaayika naka la ko Sëñ Tuubaa xamle. Mhm. al imaanu bi rasul naka la yooyu yëpp doon ko jàng waaye daawu ko jàng ci. mbindum sëñ Tuubaa waaye lam ko doon jàngee da koy boole ak lii waaye du bàyyi loola du bàyyi lii. day boole ñaar yëpp. ci lu wér jàng ko. lu mel ne ab biñ nëppee ci loolu ñu ne ah suñ mag ñi kat taalifuñ ci arab rek. Mhm. waaye am na magi wolof. Mhm. yuy taalif ci langue wolof. wolofal yu mhm. fi yoo xam ne yu am solo la. te muy suñu langue boo xam ne li ñu li ñëpp jàpp na moo ñu tax a des gannaaw. mooy ñàkk a suñu làkk. ñu ñu ñu bëgg jàmbat. ñëpp nee nañ li ñu tax a des gannaaw mooy ñàkk a jàng suñu làkk. ñu ne kon ginnaaw nag am nañu ay mag yoo xam ne taalif nañ ci ay taalif yu am solo yoo xam ne. benn taalif ëpp ko solo benn taalif ëpp ko maanaa hmm. ñu ne ko nañ jéem a tàmbalee nampal suñu xale ci way yooyu nga xam ne ay wolof la te dëppoo ak yarub xale hmm. waaw dëppoo ni ñu xale hmm. ak yam war àndal thème yooyu dëppoo naa moom ñu tànn ci way yi sëñ bay jaxate yoo xam ne dëppoo na ak loolu mën naa namputal xale bi ci langu olof jàngal ko ay olof jàngal ko tam eh, ab réewam mu xam ab réewam ci langu boppam loolu day lu am solo loo xam ne dañ ko yàgg jàmbat ñu indil woy yooyu moom it buy jàng li ñuy wax anachid ak mahfousaat mhm. wala chant ak récitation mhm. mu di ko dugal ci biir di ko jël di ko jàng ngir mu namputal ko ci làngam ba ba ñuy mën a am nag kàttanu di jàng ci sunu làng parce que dooku mu jëm mhm. ci waaw macha allah bi loolu lépp jàllee ñu ñu gis ne Tuubaa ab dëkk la boo xam ne dafa am sibq diini ya maanaam dafa am couleur diine moom la war a am ku fi dugg war a xam ne lii dëkk bii dëkkub diine li nga xam ne boo fi duggee di dégg allahu akbar jamono yu nekk noo mm-hmm. xam ne doo ko déggee ci feneen wala nu nu kawe noonu boo fi duggee tam dafa war a am ci melo yi ak doxiin yi ak waxiin yi yëpp lu mel noonu waaye ñun li ñu ci itteel mooy ci biir école bi mm-hmm. ci biir école bi moom kii jàng ci biir école bi mel melowoowu melow lislaam macha allah sax melow Touba wala melow eh, murit waaye melow lislaam mm-hmm. mooy melow Touba mooy melow murit ndax lislaam li muy digle rek loolu la Touba di digle li muy tere loolu la Touba di tere ñu wut benn règlement kii eh, waaw règlement intérieur boo xam ne dañ koo indi ci biir ngir nit ñi xam li ñuy digle ci biir école yi ci biir Touba. Mm-hmm. ak li ñuy tere école yi ci biir Touba. Mm-hmm. bi tëral ko tëral lii woo xam ne mu ci ayib lay doon. Mm-hmm. bis yi ñuy jàng ak bis suñ dul jàng feer yi ñuy am ak feer yi ñuy am ñu ñu defee ko defee woo xam ne mu ci ayib lay doon. loolu it euh, euh, euh, ci ci ci ci intérieur boobu. règlement intérieur boobu. feet yi ci mooy yi nga xam ne ay feet national la mm-hmm. bépp feet goo xam ne feet national la réew mépp ko bokk mm-hmm. benn diine moomu ko mm-hmm. feet dañ ko ca indi ni premier lu mel ni euh, premier mai lu mel ni 4 avril lu mel ni euh, feet yooyu nga xam ne daal national yi national la ñun ñoo ko moom ñun ñëpp ko moom ñu indi ko ca bàyyi ko ca ak feet yi nga xam ne yëpp feet diine lislaam la waaw diine lislaam lu mel ni gàmmu lu mel ni korite lu mel ni tabaski lu mel ni euh, màggal. Mm. yooyu yëpp nga xam ne ay feeti diine la suñu diine la. Mm. ñu wutal ko ay bis yoo xam ne moom moom it dañ ko jay feetu. Mm. yoo xam ne bis yoo xam ne mën naa ëpp lañ ca doon feetu la ko jiitu. waaw la ko jiitu. su su loolu jàllee. ñu indi it lu mel ni euh, loolu découpage la. loolu loolu mën wax léegi découpage la. mais laaya daaxile bi nag ñu indiwaat ko nag mooy li ñuy tere ci école bi ak li ñuy. Euh, nangu ci école bi lépp. Mm. lale lale euh, découpage la. Mm. lii euh, règlement intérieur la. Mm. loolu lépp andi nañ ko ci biir leeral ko ci ci français ak ci arabe yëpp. ba kii yor école wala ki ubbi jàngukaay ci dëkk bi xam na lii moom lañ digle ci dëkk bi lii lañ fi tere lii lañ fi bëgg lii lañ fi bañ. ñu xam ko xam bu leer nañ loolu ci gàttal moom la direction bi liggéey. bi mu ko liggéeyee ba noppi rek nga xëy na sotti na. ba mel noonu ni ñu ko bëggee ñu def ko ay téere. ay téere mooy ah, ah, yi nga gis waaw téere yi génn na. waaw allah bii bii ci la bokk. ci la bokk nga xamante ne képp koo xamante ne jàngalekat nga wala ngay borom école. boo amee téere bi di nga mën a xam li nga xam ne moom ngeen bëgg. ci ci kii ak effort boo euh, offre boo mën a jàngale. Mm-hmm. boo dee jàngale arabe rek. Mm-hmm. boo dee jàngale français rek. boo dee jàngale euh, euh, euh, franco arabe rek. Hmm. am nga sa livre boo xam ne. macha allah liñ ci indi lépp moo nga ci biir. lien bi ngeen créé woon pour ñi nga xam ne dañu war a bind ci ci ci ci liggéey bi ndax am ngeen fi taux bu jéggi dayoo sax. maanaam hmm. xam nga yéen ba hmm, naa fi moom maa ngi ciy jégalu. Ah, te loolu leen fi tax a yàgg. ñuy jël si téere ah, ah. bari bari ba nga xam ne bu ñu xëyee léegi amatuñu liggéey sax daanaka ci jamono yi bu dul lool. fu ne nit jógee fa ba ñu ne waaw ñii ñii ñëpp ñu ngi Touba. Mhm. biñ seetee fi ñu tollagoon fi mu ne. Mhm. am nañ ñaar téeméer ak juróom-ñett ñaar téeméer ak juróom-ñetti école. ñaar téeméer école yoo xam ne jot nañu jël seen. téeméer ak juróom-ñetti école yoo xam ne mhm. bindu nañ. ci biir euh, plateforme bi ñu leen joxoon. ñi jël si it daanaka xaw nañoo jege lool. ci weer waaw. te di jàpp nañu dana ko jéggi bu baax baax baax. macha léegi dugg nag ci bis yi. Ah. parce que bis yi dama gis ne euh, samedi ak dimanche lañ daan noppalu ci école français yi yi nga xam ñoo nekkoon ci biir dëkk bi. Mm-hmm. léegi ñu ne alxamis ak mm-hmm. am na ñoo xamante ne dèjà commencé nañ ko. Mm-hmm. am ñoo xamante ne commencé guñ ko. ndax euh, am na force goo xamante ne dañ ko forcer nit ñi pour ñu war koo appliquer. wala comme neex nga nga appliquer ko. xam nga loi ay loi moom ay règlement buñ koy génnee. Mm. duñ ko génnee ngir. intérêt kii wala ngir intérêt kee. Hmm. waaye général lay doon. Hmm. lu matale ñëpp. kon bu ñuy génne euh, euh, benn benn loi wala benn dara dañ koy généraliser lépp. Hmm. ñëpp a koy bokk ñëpp bokk. Touba dëkku diine la. dëkku diine la. kon ku fi dund war ngaa dund diine. ba nit ñi xam ku dikk ci dëkk bi sax boo duggee rek xam ne dëkk bi kat dëkku diine la walaay comme noonu ma ko waxee ci julli yooyu yëpp. alxames ak jàkk koo jàng du lu bees. ci wér dañ ko fay fekk. waaw muy cosaanu jàng yi fi nekk yëpp ak yeneen jàng yi fi wàll si sax am na ci ñoo xam ne dañoo xool euh, adopté ko ak milieu bi. li mm-hmm. mu laaj ba ca commerçant ya sax. Mm-hmm. dañ ko jël. ajuma duñ jàng duñ duñ liggéey ajuma waaw kon lu mel noonu. de su ko mën a réeree rek ne comme neex defal lu la neex. comme mm-hmm. neex defal lu la neex mooy boo duggee ci dëkk bi doo xam dëkk bi dëkk lan la. ñee ngay jàng dimanche ñee ngay jàng ajuma ñee ngay kenn ku ne def lu la neex. te loolu amul ci benn dëkk. ñu ne kon nañ nañ li ci fekkoon nañ ko gën a dëgëral. muy ñuy bàyyi alxames ak ajuma di ko noppalu di jàng samedi. ak àllarba. Mhm. loolu mooy li ñu digal ne nañ ko wax ñëpp te bind ko ci biir téere yi. Mhm. te sàmmonte ak loolu ci biir njàng mi. Mhm. te nag du du du loo xam ne comme ni ma waxee lu lu bees. daanaka quatre vingt pour cent ci école yi fi newoon. noonu ñu doon jàngee. noonu la ñu sax duñ daara duñ majalis waaye ay école euh, arabe lañ waaye ay hmm. moo leen arrangé woon xam nañ moo dëppoo ak dëkk bi. Hmm. ñu ñu ñu ñu jël ko. kon jël ko ko li fi a dëgëral dañ ko a euh, hmm. moom di ko def ni nga xam ne noonu lañ ko digal digle. léegi ñu dugg ci euh, bi muy wàllum li jëm ci wàllum e yoo xamante ne ay école français la jàng ndax am na benn matière bu ne seen biir programme bu tudd EPS. ñoom nag xëy danañ xaw am am jafe-jafe ci naka lañ war a mën a defee EPS ci biir Touba. Mm-hmm. ndax am programme ngeen wala préparé ngeen loo xamante ne noonu lañ ko war a defee ñoom. Mm-hmm. ak dañ am autorisation yu leen may ñu mën ko defee. Mm-hmm. comme ni ñu ko daan defee ci buntu école yi wala ñu demee. waa xam nga loolu da ci am loo xam ne maanaam ñun suñu autorité mi ngi yem ci biir école bi. bu génnee école bi am na ñeneen ñoo xam ne seen autorité la. ñu dénk leen ko. ñuy sa ñuy saytu la la la ca war. mi ngi ci biir programme bii. ñu mhm, mhm. ngi ci ñu ci war nekk ci ñu war koo def. li ñi ñuy jàpp nag jàpp na sport mooy football rek. Mhm. ñuy tere li ñuy tere mooy football te du football te bari lool. war nañ caa mën a yem. defee ko ci seen biir école buñ ko amee wala ñu defee ko feneen fu leen neex. waaye football loolu loolu ci li ma ah, gis. ñuy tere. ñun ñun du ñun. waaye ñeneen la ko suñu sant. ci ñoom koy tere. bëgg jàmm nag da ngay sàmmonteeg loola sa biir école nga fay def say mouvement ak say yeneen activité yoo xam ne activité euh, sportive la mm-hmm. mën nga koo def sa mm-hmm. école mën nga ko def feneen mm-hmm. ndax loolu moom lislaam téréwu ko lislaam téréwu kenn yëngal sa yaram ndax al aqlu salim fil jismi salim jismi salim jismi salim te jismi salim la bokk na ca la koy amal nit mooy mu di ko yëngal loolu bokk na ca waaye façon bu ñu ko yëngalee nag ay façon yu bari la nit ba defe ne léegi rek ci lii la lii rek lañ ko mën a yëngalee. Mm. waaw loolu nag buñ ko teree. Mm. te mën a am lu ko wuutu. Mm. dañuy yem ca la ko wuutu. te ba jaay xanaa ñaare kay li ñuy wax mooy tenue tenue tenue de pièce yi nga xam ne moom la yi ñu yore ñaare eh, nga xamante ne tenue yi. Mm-hmm. moom la xalaat suñ ko defee mën nañ caa am jafe-jafe yu mel noonu. waaye xëy na tolérance mën naa am ci yan tenue yoo xamante ne yu xaw a yu xaw yu xaw a kii la bañ mën caa def lañ bëgg. te fekk na loolu wax nañ ko fii wax nañ ko biir. ah wax nañ ko ci téere bi EPS liñ bëgg mooy bu ñu mm. koy def mm. nañ nañ nañ nañ def luñ man mm. ba bañ a jaxase góor ñi ak jigéen ak macha benn la suñ demee ba gën a am moyen nañ fexe ba ka koy jàngale ci jigéen di jigéen ka koy jàngale ci góor ñi di góor ñi loolu ay moyen lay laaj mm-hmm. lay laaj ak ah, ak i mm-hmm. compétence yoo xam ne xëy na mm-hmm. ñëpp amuñu ko waaye lu au moins moom ñu tàqale góor ña tàqale jigéen ña tàqale góor ña tàqale jigéen ña ba it ñu bañ a sol yére yoo xam ne l'islam nanguwu ko ca góor ña ak ci jigéen ñi nag sax waaw du mm. ci jigéen ñi rek waaye ci góor ñi ak jigéen ñi ñëpp mm. am na loo xam ne lislaam nangu ko mm. kon nañ suturaal lañ war a suturaal sol yañ war a sol def seen sport du yàq ci dara waaw la ñuy tere nag nga xam ne mooy football ñu bañ koo def ca barab ya nga xam ne ca lañ koy ca lañ koy ca lañ koy teree. Mhm. waaye loolu moom du suñu domaine. na sax dinañ ci jóge yeneen yi gëstu eh, ñu seen domaine ah, mhm. la mhm. euh, ñu duggaat ne na bu ko am. ndax am école bu mu neex mën na koo maye. wala tamit day nekk loo xamante ne dañ ko war a appliquer bu nga xamante ne moom force lay doon école bi du maye fête waaye day tënk day tënk ci kii xam nga xam nga Touba. amul école publique ci niñ koy tuddee wala yu tuuti la. Mhm. école publique boo xam ne état ko moom. Mhm. li fi nekk ci ay école même français yi ak arabe bi ay école privée la. Mhm. ay école privée yoo xam ne bu ñu nee privé mooy loo nit ki ko moom. ko dëgg la ci ni école publique yi doxee règlement yi leen di doxal mooy doxal école yële. waaye am nañu ko wuute ci biir Touba. am nañu ko wuute ci biir dañuy teg loolu ci biir Touba maanaam ñun waxuñu ki nga xam ne daa am beneen diine wala dafa am leneen lu gëm. Mm-hmm. loola jot mu ni ko feetu. Mm-hmm. ko ketterewu ko. Mm-hmm. waaw ketterewu bërki démb rek ab feet amoon na. am loola te gëm bu feet ga jotee école ba may ko loola mu dem feetu ko. dem si waat ah waaw loolu amul amul benn benn jafe-jafe. mais ñun li ñuy génne officiellement moom mooy yii feet lañ am. waaw yii feet lañ am. te it euh, bu bu ñu bu ñu indee. ak maandu te rek. Mhm. justice bu ñu ko andee. Mhm. dañuy gis ne beneen côté bi it am na loolu. Mhm. tey man màggal Touba bu ñëwee. nga ne ma man ñetti fan laa lay may te ma dëkk Touba. di màggal si ah. nga ne ma parce ah que am nga problème ànd ak loolu lépp damaa fexe ba. ànd ak yow ci loolu rek. seet na ma koy liggéeyee. bu tabaski dikkee nga ne ma benn fan laa la may. ndax amoo problème. noonu ko nga xam ne ay ay ay problème la ñuy am ñoom ñi ñi ci benn côté bi mu jullit yi. Mhm. ci feet yi nga xam ne moom la ñu leen defal. Mhm. ñeneen ñi ci des it dañuy dañuy xam ne ñoom it ñooy problème la ñoom rek. te mhm. jullit yi fexe nañ ba lijjanti ko ba jàll ci. ñooñu dañ fexe ba lijjanti ko ba jàll ci. loolu rek la waaw. waaw loolu waaye nag loi moom mu ne su ko. xat séddale. ay intérêt ay intérêt individuel yoo xam ne hmm. kii daa am kii nee na man li arrangé na kii nee na man li arrangé hmm. am na école yoo xam ne ci Touba hmm. ñoom alxames ak ajjuma ji ah ah, moo leen arrangé parce que mën naa am ñu bëgg ci yeneen loo xam ne ñoom samedi dimanche lañ koy mën a def te buñ defoon samedi ak dimanche feet duñ ko mën a def ci ñooñu a loolu dañ koy séddale maanaam ay mbir la yoo xam ne ay intérêt yu wuute la ah, loi nag du du ay intérêt yu wuute day seet benn règle générale boo xam ne mën na ko boole suñ demee ba àgg foo xam ne nag mën naa indi ay jafe-jafe ci ñu bare mm-hmm. waaw ñu gis ne lii kat jafe-jafe lay indil kii wala indi kii te loolu mi ngi bëgg a bare mm-hmm. ah su boobaa suñ jotoolee daal koy wutal solution rek solution macha allah léegi ñu daal di ñëwaat nag ci euh, liggéey bi ndax préparé ngeen lenn ci ay euh, takkiwinaat muy ay formation yoo xamante da ngeen ko defal jàngalekat yi wala bokk ay ndimbal yoo xamante da ngeen ko jox jëme ko ci école yi ndax loolu mi ngi xel waaw xam nga li ma wax euh, am na waxtaan waroon def démb waxtaan naa ko ca ne sëñ Muntaxa dafa jàpp ne moom Touba ku fi yëngu ci jàng ak jàngale rek moom ngay jàppale. Mm-hmm. lim sos ak lim mm-hmm. sosut lépp la ci yemale rek. Mm-hmm. waaye lim sosut nii lii mu ci def ndimbal la. ndax téere yii ak programme yii ak benn la école yi. ba ba ba ñu nekk benn li ñuy jàngale di benn ni ñu koy jàngalee di benn. loolu du ay école am la koy defal. Mhm. kon école yi mu koy defal mi ngi leen di dimbale ndimbal loo xam ne maanawi yi la. Mhm. ndimbal loo xam ne ndimbalu biir la. mënoo mhm. ko lamb daj ko nii waaye mi ngi am. kon kon direction bi rek looloo ko tax a jóg. dimbale école yi rek ko tax a jóg. waaye du yem foofu. ndimbali du yem foofu du yem ci ndimbalu maanawi yi rek mais ndimbal màddi yi. màddi yi loo xam ne loolu loo xam ne dañ koy mën a lamb gis ko gis ko wala ñu mën ko lamb daj ko. na yëg sa bopp ne. sëñ bi kat ñëpp la fi nekkal. nekkalu fi ñii bàyyi ñii waaye ñëpp la fi nekkal. ñëpp la fi nekkal seen relation ak euh, IEF bu Mbacké nga xamante ne moom moo lënk moo të moo moo yilif njàngale mi ci biir département bi ci biir diggante Mbacké ak Touba seen relation bi nga xamante ne am na seen diggante ñoom lii bi ngeen koy tënk ñoom naka lañ ko jàngate ñoom. waaw loolu it lu solo la. Mm-hmm. ndax euh, Touba ci biir Sénégal la nekk. Mm-hmm. Sénégal dafa am ay loi am ay kuréel. Mm-hmm. yoo xam ne ñoom lay topp tooloo njàng ci département yëpp wala région yëpp. Mbacké am na ko muy IEF. ñooñu yàlla dogal na bi ñuy liggéey kii bi ca tàmbali ba ba ba fi mu agsi hmm. mosuñu ci réeroo ak ñoom hmm. ba ñuy toll ci liggéey technique boo xam ne dañ koy liggéey di di dugg ci kii di defar ay programme di defar ay ay modèle booba daanañ leen ci boolee leen di woo ñenn ñenn ña dafa jógee di di di ci bokk hmm. bañ demee ba nga xam ne àggal nañ koy li ñuy wax validation man xool ko ba xam accept baax la hmm. validation technique moo am ak validation euh, institutionnelle hmm. validation technique bi mooy bi ñu noppee ci liggéey bi woo leen ñoom ñi nga xam ne ay techniciens lañ ci ay inspecteurs wala ñu ay euh, experts yoo xam ne ci wàllu xam ci IEF ak IA am nañ ko ñu woo leen ne leen ñëw leen xool liñ liggéey hmm. ñu bokk ci liggéey boobu xool ko càmbar ko bisub lëmm. boo xam hmm. ne lu ci lu ci nekk càmbar nañ ko wax ca seeni xalaat. Hmm. ne buñ gisoon nii lañ ko gisee woon wala nii lañ ko gisee woon wala nii lañ ko gisee woon ñu seet ca la ci hmm. nga xam ne moom nag ñiy dogal ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw ministère. de l'éducation nationale. moom it bi ñu demee ba def validation boobu ñu woo ministère ñu ñëw. waa ministère ñu ànd ak waa IA ak waa IEF ñooñu yëpp daal di ñëw nag ñu am. benn kendal boo xam ne ci validation institution boobu la ñu ko doon defee hmm. mooy waa ministère ñoom xool programme bi lañ bat ko ba gis ci li nga xam ne moom lañ ci gis muy bu baax ñu bàyyi ko ci hmm. li nga xam ne war nañ ko cee ñu gis ko ñu wàññi ko ko ci hmm. loolu amoon na mu des nag léegi nag ñu joxe seen kàddu nag bind ko wane ne programme bii kat ànd nañ ci ak ñii ko def loolu loolu wax nañ ko ba noppi waaw ne ànd ànd nañ ci léegi nag li ci des mooy ñu bind ko rek ba mu nekk lu officiel yoo xam ne day dox ba àgg foo xam ne ñëpp dañu xam ne lii lu officiel la. Hmm. te loolu sëñ bi moo ko woneel boppam. ci biir waxtaan bi waxtaan bi biñ biñ koy jëbal lii ba muy joxe ndigal loolu. Hmm. mooy wax na lu ngeen ciy def ngeen dëppoo ca ak ñi yor yoon yoon yoon. Hmm. ngeen dëppoo ca ak ñoom. loolu yàlla dogaloon na ña ca tàmbali nañ ko te ñu ngi ci processus ba processus ba. dañ dem ba àggale ko foo xam ne lañ bëgg mooy képp koo xam ne am nga école Touba. bala boo demee Mbàkke dafa wut benn këyit. dañuy laaj ndax direction bii nangu nañ ne yow am nga école Touba te sa école nangu nañ ko. Hmm. boo dem loolu loolu reconnaissance ci biir Touba. Mhm. maanaam autorisé mhm. waaye nag autorisation ba ngay am niveau national la. loolu waaye ñoo koy liggéey. ñun. waaw ah. ñuy li rek mooy. Mhm. yow daal am nga école Touba. école bi nii la bindoo nii nañ ko fi pour nga di ko jàngale. waaye lay tax nag nga matal lay tax ñu rek euh, jox la autorisation. wala jox la reconnaissance loolu moom da ngay dañ lay bindal këyit nag nga dem Mbàkke. boo demee Mbàkke nag ñoo xam ne yow jaar nga fi nga war a euh, ko gën macha allah ma daal bu ma déggee sa kàddu ma jàngat ko ni nga xam ne laa ko war a mën a jàngate mooy dafa am benn bu ma daan dégg mooy école mbedd mm-hmm. kon yéen di ngeen a jóg daal jële fi lépp luy baatu école mbedd indi école boo xamante ne day teg ko ci norme donte sax waaye ci biti dañ njàng moo xamante ne njàng mucc ayib lay doon laa bu mujj bi rek laa bëgg a daal dugg mooy ku bëgg am ci téere yi ak bëgg euh, xam ci ay leeral ndax am na bunt bu mën a jaar wala numéro téléphone bu mën a woote wala fu mën a jaar ba am ci mm-hmm. dëgg la li nga njëkk a wax moom laay taxaw. Mhm. maanaam génn euh, noo ko waxee sax. waaw dafa njëkkoon da nga ñaan école mbedd. nga xamante ne daanaka waaw waaw li ñuy tudd école mbedd. Mhm. loolu wax dëgg yàlla. ku xam Touba. Mm-hmm. léegi nee nañ Touba mooy euh, maanaam Mbacke la ñuy wax waaye Touba tax ñuy wax. Mm-hmm. mooy dëkk bi gën a populaire ci ci ci Sénégal. bi mm-hmm. ëpp ay nit ci Sénégal léegi Dakar la woon mais léegi Touba la. ñu bàyyi rek ku mu neex ubbi école nu la neex jàngale la neex jàngalee. loolu ku ne xam na ne ba mu fi war a jóg daa yàgg. daa yàgg walaay daa bi rek bokk na ci ay objectif am yi mu bëgg a réaliser. mooy jëlee fi loolu. jëlee allah. jëlee fi loolu. donc xëy kuy ubbeeti école. dañuy xool nor bi ñu ngi koy ubbee. xool li ngay jàngale wala ni nga koy jàngalee wala ñi koy jàngale hmm. waaw ba mu jaar ci ay yoon hmm. ñu door laa may ne la yow mii mën ngaa am école xool barab yaa ngi koy jàngale tam ñu xool ko ba xam ne war ngaa mën a jàngale macha allah mën na caa bañ a àgg nag fa ca état di àgg hmm. waaye loolu état nga koy lijjantil moom nga koy moom nga koy siqal boo ca àggee état mooy euh, ñun fii ci dëkk moom li ñu a jëlee moom mooy école mbedd yooyu école boutique yooyu moom li ñu fi bëgg a jëlee bokk na ci kon kon incha allah bu ci ci kanam danañ ci def ay jéego yoo xam ne danañ xam ne lool loolu rek bala nga koo man école mbedd yooyu nga wax da ngay fexe ba am école yoo xam ne école mbedd yooyu man na mën naa wutu yooyu mm-hmm. mën na ko fay jëlee mais mën na ko fay wuutu mm-hmm. ndax ku jëlee ci barab dara da fay teg dara loolu it ñëpp xam nañ ko waaw kon kon bu ñu àggee ci loolu incha allah ndànk-ndànk nag lay doon du koy xëy rek daal di sotti waaye ndànk-ndànk lay doon ba àgg ca fañ ca ca war a àgg ndax loolu buñ ko xoolee état sax da koo dal am na école état am na école mbedd ah. ndax abri provisoire xam nga du école mm-hmm. ba école xam ne ay sàgget la wala ay ay bant la wala ay nangam la mm-hmm. loolu euh, manque de moyen wala ñàkk man a matale lépp comme état la dal nag waxuma laa ñi nga xam ne duñu état loolu kon ñu di ko état di dindee ndànk-ndànk ndànk-ndànk noonu it noonu la ñuy euh, liggéeyee di ko dindi ndànk-ndànk ba ba ko fi yàlla dindi bu dee téere yi nag ah. bi ndax téere yi mooy loo xam ne mën nañ ko tuddee ay téere waaye du ay téere ay fascicule la ah ay musakiraat la yoo xam ne dañ koo defar def ci li nga xam ne moom mooy programme yëpp programme yëpp nag la fi newoon di programme officiel ci mboolem offre yi mi ngi ci ak liñ dolli ñun liñ ci dolli mi ngi ci nga xam ne dañ cee boole lépp nga xam ne tey boo amee téere bii mu nga xam ne arabe islami la mboolem programme bi ñu war a jàng bañ def dara ñun ak bañ defut dara yépp da koy amaale ba nga xam ne dolli nañ ci ñun dara wala ndax lu mel ni riyaadiyaat muy muy mathématique lu mel ni euh, kii taarix muy histoire wala géographie ñun liggéeyuñ ci loolu defuñ ci dara mm-hmm. waaye mi ngi ci mu ngi si nga xam boo amee téere bi rek dangay ngay daal am programme bépp da koy am léegi rek boo amee programme bépp ba noppi nag la cay des nag mooy nag naka lañ koy tàggatee nit ñi bañ mën koo jëfandikoo mooy takkuwinaat yi mm-hmm. takkuwinaat yi nga waxoon incha allah bu ñu noppee ci lii ba téere yi dem ci ñi war a dem ñëpp bañ àgg fi mu war a àgg fépp bañ jël ko ba di ko jëfandikoo danañ def ay tadribaat wala ay takkuwinaat yoo xam ne ay information ak i formation waaw incha allah semaine bii danañu def benn information boo ndaje moo xam ne duñ ko tuddee formation waaye dañuy informer nit ñi naka lañ mën a utiliser téere yi naka lañ ko mën a utiliser waaw ku ko bëgg am nag ab gi ni waxoon nañ ko mu ngi aju ci euh, plateforme bi képp koo xam ne bind nga ci plateforme bi te dëkk Touba bind ci plateforme bi soo dikkee danañ la jox téere ya nga war a am te duñ la ci duñ la ci laaj dara dara lañu la ci laaj waaw lépp dañ la koy may waaw lépp dañ koy may euh, li ci yéemu mooy bi ñu ubbeeg léegi gis nañ fi ñoo xam ne ci Touba mooy école yooyu ngay wax école yooyu ngay wax gis nañ fi école ay ay mbooloo moo xam ne leer nañu ne ñii moom am nañuy ecole waaye seeni école man naa bañ a demee na mu war a demee loolu nag xam gi rek dafa am solo ndax dañ ko daan wax rek waaye nag am ci lu la wér loolu moom ñu ñu ngi koy am. loolu nag la muy jur mooy ko amee ba xam ne lii bu fi am nu ñuy def ba faj ko la la la ñuy waaye ñi ngi dikk bu baax a baax. waaw gis naa fi léegi koo xam ne. Mm-hmm. daf ne moom daal alxuraan la doon jàngale ak tasawul saxaar. Mm-hmm. te école la yor. waaw xam kooku xamul lu xew. macha allah waaw léegi nag ñoo ñëpp nag dañ leen a bëgg a boole ndax ñàkk xam la. ñàkk a xam ak ñàkk am la. Mm-hmm. waaw loo xamut amoo ko. ci mënoo ko appliquer. mënoo ko incha allah nag li direction bi nag fa jëm. Mm-hmm. mooy fexe ba ñëpp xam ko fexe ba ñëpp am ko. Mm-hmm. fexe ba ñëpp man koo appliquer tam ci biir daara yi. ba nga xam ne dana mel niñ ko niñ ko ko bëggee macha allah kon mbokk yi doon bàyyi xel seen site internet Rafah TV jàpp naa ne am ngeen satisfaction ci li nga xamante ne moom la indi tey muy euh, ñëw fii tey ci euh, complexe Cheikhul Khadim bile euh, dalal sunu bàyyi jile di Serigne Mountakha jatara ngeen dégg leer yi li am solo yi nga xamante ne def na ko moo daal li ma dégg mooy kon dafa mel ne mbirum suñ tubaa basang la koo xamante dañ ko ràbb rek lem ko saa bu ñu ba jamono toll rek dañuy rek lemmi mu toll fa mu toll rek waaye waaye lépp Sëñ Tuubaa programme rek ko mm-hmm. xanaa bàyyi rek ma bàyyi la nga daal di tàggatoo la mooy kàddu yi nga xam moom ngay mm-hmm. li may tàggatoo day mooy rek euh, di jéem a euh, laabiira sama bopp di laabiira mboolem ñi may déglu mm-hmm. ci ñu xam ne euh, sémb bii nga xam ne Cheikh Ahmadou Mountakha sémb na ko sémb yoonu murid wépp la parce que sémb bu toll nii ku ko sémb fab sa alal def ca fab sa temps def ca fab sa lépp def ca ba ñëpp xam ne lii moo la ñor moo la soxal. Mm-hmm. loolu mu ne su ko weesu. Mm-hmm. kon moom waru garam wàcc na. Mm-hmm. lii li des ñun la. ñun ñi nga xam ne ñu la ko jëmale ci ñun naka lañ koy jëlee naka lañ koy doxalee ba xam li ciy jariñ ñi ciy jariñ ñu mën koo jariñoo li ci te te du am lor du am benn benn lor waaye li ciy jariñ ñu mën koo jariñoo ñun ñëpp dañu war a xam loolu te jàpp ne euh, ab tàmbule la ab tàmbule nag du mat. day am ay manquement. day am ay yu sooxe ay nangam nangam waaye loolu lépp bu amee temps ñu dox ndànk-ndànk danañ mas àgg foo xam ne ñëpp danañ sant ñëpp danañ danañ gërëm. Mm-hmm. di ko sant moom nag di ko gërëm lool moom Cheikh Amadou Mountakha. Mm-hmm. ndaxte lii lu ñu yàgg mébét la. Mm-hmm. boo dikkee fii. danaa koy wax ne képp koo xam ne jàng itteel na la. waxuma la sax islaam ak dara waaye jàng itteel na la. waroo romb fii rek di romb naan dégg naa ñu ne ab complexe wala ab université am na fële. Mm-hmm. war ngaa dikk ba gis li fi ne. Mm-hmm. xool gone yi fiy jàng di xëy di wàcc. Mm-hmm. ci ci ci domaine nga xam ne kon lii ab réalité la bu am boo xam ne nekkut ay waxati rek. léegi ay jëf la. Mm-hmm. ay jëf la yoo xam ne ñu ngi a rek. ba liggéey bi tàmbali a a bi day a ah, mm-hmm. xëy na defuñ ci attention. Mm-hmm. maanaam li koy yor moo gën a jafe li ko tabax. a te loolu ñun ñi fi dëkk xam nañ ci dara. ndax fee ca waañ wa. boo fa demee ña ñuy toggal ak reer. yor leen fi duñ joxe dara. Mm-hmm. wax nañ ne estimé nañ léeg-léeg ñu dépense maanaam chaque jour. Mm-hmm. ñu dépensé un million. un million chaque jour. par bés te loolu waañu daara ji rek la. Mm-hmm. bokkut ak IFR ya. bokkut ak santé ba. bokkut ak administration bi ak jàngalekat yi ñu jël di leen fay ak nangam nag yooyu yëpp bokkut. bokkut te la ca war lépp ci jamono ji ñu toll moom. sëñ bi moo ko warlul boppam te nee na lu woyof ci moom la. ndeysaan waaw laaju ci ndimbal kenn. waaw ña doon fay sax daf ne nañ bàyyi fay ka waaw. te ndax loolu ñun dañoo jàpp ne rek am na yoo xam ne mënuñu su cee ñàkk dugal sa loxo mm-hmm. waaw ñu jàppee ko noonu waaye daf ne sax nañ ci génn ñooñu nañ ci génn seen loxo mm-hmm. parents d'élèves yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo yor daara ji wala ñoo yor majalis bi dara duñ ko jënd dara duñ jënd téere duñ jënd alluwa duñ jënd lenn mm-hmm. lépp sëñ bee koy jënd nangu duñ jënd dara kon nag loolu du sëñ bi moo koy def moom képp waaye daf ko war a bokk ak murid yëpp waaw li ñuy wax loolu ñuy wax Touba ca kanam. Mhm. Touba ca kanam ci lépp la war a feeñ. ci li lépp la war a feeñ. ca mhm. njàng ma euh, ndox ma. Mhm. Euh, ca lépp la a feeñ lépp la lépp daa war a jëm kanam. waaw te la ca gën a am solo nag mooy njàng. macha allah waaw ndaxte ñun wax naa barki de mu ne ñun amuñu benn jafe-jafe bu dul jafe-jafe réer. ignorance. mooy suñu problème. amuñu problème bu ñàkk. amuñu problème feebar amuñu problème lenn ndax yooyu yëpp. bu xam amee dana fa wàññiku dana wala mu jógee fi. ci la wér ci la wér dana fi jógee ñàkk. am na réew yoo xam ne ñàkk wàññiku na fa lool te xam-xam ko fa jëlee. Mm-hmm. am na réew yoo ne feebar wàññiku na fa lool waaye xam-xam ko fa jëlee. Mm-hmm. suñu bëggee àgg ci réew yooyu nag dañuy fexe ba lañ def ba loolu jógee fa. Mm-hmm. ñu ne ñu góorgóorlu ci loolu ba loolu jógee fa sëñ Muntaxa ndeysaan danay faral di wax baat boo xam ne da koy baamu a nit ñu di ko seetlu. Mhm. maanaam nañ nañ loolu am na benn discours boo xam ne man noonu laa ko ci moom laa ko déggee. Mhm. maanaam nañ intiraaf xam-xam. Ah, waaw maanaam daal di ko waxaat ne nañ reconnaître xam-xam. baat boobu mhm. moo ko wax. Ah, waaw mooy lan mooy nañ ko jiital ci lépp. ci waaw. nañ fa xam-xam jiital ko. xam yëpp nag la wax mhm. waaye nañ jiital xam-xamu diine ah. qaddimil ilma mhm. ala kulli amal mhm. ida aradta an tafuuza bil amal waa nee na bu fekkee bëgg ngaa bëgg nga àgg bëgg ngaa àgg am li nga bëgg jiitalal xam-xam ci lépp looy def loolu du jaamu yàlla rek de waaye lépp looy def médecin bu jàng médecine ba noppi te doo faj lu muy ah. xamu diine ba noppi te doo jàng yàlla lu muy jëriñ kon ñëpp la wax faqaddimil ilma ala kulli amal waaw waaw xaddim ala ibadatin taalluma jaamu yàlla yi ngay def bala nga cee def dara na nga jiital xam-xam macha allah kon xam-xam moo jiit ci lépp moom nag mu jëw mu ñëw def ko ab aw sasam mm. kon loolu war a tekki ne murid yëpp war nañoo fabuwaat ci loolu benn murit bu ne. Mhm. boo jàngoon nga gën a dolli sam njàng boo jàngutoon la la naqari woon ci sa bopp ba jàngoo. nga jéem koo dabaatal ci sa njaboot. da mhm. jéem ci sam njaboot nag war naa yomb ndax ubbil nañ la bunt bi léegi. Mhm. ci jàngukaay yi fi nekk dafa la ay jàngukaay yoo xam ne yaa ngi cay jàngee. te doo fay dara. te incha allah dana àgg foo xam ne murit yëpp a jot. ni mel fii nga xam ne ab lim la rek bu limu. am ñu ci jot am ñu ci jotut te am ñu bari ñu ci bëgg a jot waaye buñ demee ci jam ci jam ci ci ci ci ci kanam danañ dem ba ñëpp jot ci njàng moom nga xam ne mooy am fii dana tasaaroo ci dëkk bi dana tasaaroo ci réew mi ba ñëpp jot ci bu ci ñëpp jotee rek jàmm rek mooy am ci réew mi macha allah jërëjëf sëriñ Moustapha sëriñ Mountakha Diatara mu mel ne tamit euh, bi di wax maa ngi sama xel ngi dem ci euh, almadaris xabral masajid mu mhm. mel ne yéen tusaa sama daana wax naan euh, daara yi lu jiitu jàkka yi mhm. kon jàpp naa ne daara moom mënta ñàkk te moo war a jiitu ci fépp foo xamante ne moom mhm. foofu doomu aadama nga fa sant nañ bu baax a baax ci dalal gi ak yaatal gi tamit sa temps mayu la toogaay yàgg mm-hmm. waaye lépp sacrifié nga nga ko ngi ñu toog waxtaane li nga xamante ne taalibe yi soxal na leen mm-hmm. xam naka lañ mën a defee ba ak si fii nga xamante moom moo di ci liggéey bi da lépp rek yëngu ak dal gi mhm. mhm. mhm. a dool yi waaw li ma ci bëgg a euh, bi mu yëkkatee liggéey bi da koo teg ci loxol rawdu rayaaxin rawdu rayaaxin macha allah rawdu rayaaxin cheikh mahamadul badawi moom cheikh mahamadul fadl moo ko jiite moo bi it moo ko jiite complexe bi it moo ko li ñuy def lépp it ci njiitam lañ koy def ci ndigalam lañ koy def ci mu defin woo xam ne mhm. amu ci lenn loo xam ne ump na ko mu ci mhm. lenn loo xam ne réere na ko mhm. mu ànd ci ak ñun àndin wu rafet mhm. ca tàmbali ba ba ba fi ñu toll fii mhm. moom it ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm te di ko ñaanal yàlla may koo gudd fan ba nga xam ne li sëñ bi yaakaar ci moom dana dëggu ci moom waaw yéen di leen sant bu baax Touba euh, wala Rafah TV Rafah TV ndax euh, ñu ngi leen di suivre bu baax a baax te li ñuy suivre ci yéen di ko gis euh, damay wax ne xëy na seen seen seen turandoo sama sama xarit la sama mbokk la <laughs> waaye di ku baax Mm-hmm. waaye mm-hmm. dafa mel ni tur wi da leen a yóbbaale yëkkati wàlle leen yéen ba bare ngeen leen di mm-hmm. diglu li ngeen di joxe di lu am solo loo xam ne lépp lu def incha allah waaw kon salaamaaleykum yaakaar naa ni daal foofu moom waxtaan foofu la mën a yem ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp soxna Jaaratullaahi Maam Mariama Bousso moo nekk ci benn caméra bi caméra bi ci des Cheikh Mamadou Fadal moo ci nekk ñu sant leen baax gërëm leen coordination bi ak jàppalante bi Mourtada Fall sant ñëpp ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen